ñu ngi doon lay ziar ku baax Baye Fall bi ñu ngi ziar de waaw ñu ngi ziar bu baax a baax ci weeru koor wi naka majaal bi baa mi ngi dox waaw ñu ngi sant yàlla baax jul Seydina Muhammad mi nga xamante moo waral lii te yàlla sunu borom mi xam ndax jul ci yàlla yi wax dëgg yàlla ku ci nekk li nga am yaa ngi koy jaayante te yàlla rek tax di ñu ko jox ñu koy jox jaamu yi li ñuy def ni loo xamante ni nii ay gisal la wala du neex nit ki déedéet yàlla moom moom bisam te nee sama bis bii képp ku nga xamante jël na ci benn tànn bu jox ko doomu aadama yàlla man maa la fee sa bopp te lii dafa nekk loo xamante ne nii su ma yemoon at mi yëpp benn yoon la fay am kon nag yàlla mi nga xamante ne delluwaat sunu sunum xel ba xen ci boppam ñuy def la baax ñu ngi koy ñaan nag yal nañ sunu borom gën a kattanal ñu gën di def la baax ci barke Seydina Mohamed ndax weeru koor mooy weeru lépp moo bëggoon a xam ba xam yow euh, ci Baye Fall woor nga bokk wala waaw maanaam euh, Baye Fall sax bu ma maa ngi si ki nga xamante day woor ba ngoon nga yëkk ci ndog jox ko koor ga nga mu am mm. yàlla sunu borom dala koy boole mm. xam yàlla sunu borom wax mm. nee na sama weer wii waxuma kenn de man maa nii fasuma ko kenn man maa nii ku mën defal te yàlla tax ku munul bàyyiwul bàyyil boo munul baal waaye nag maanu ndax dañuy koor dafa am lu mu àndal mooy njëkk ji mooy lan maano soo maanoo rek si lépp baax na waaye boo wër ta maanoo du baax yal na yàlla defal xolop maano ñi wóoru tamit yal nañ jox am xol yëkkati xéewal di ko jox jaamu yàlla yi xam dañoo woor te bool nag ak maano ndax maano mooy lépp ci barke Seydina Muhammad yéen nag yi ngi leen sant di leen gërëm te xam ne amul seen fay waa TV Sénégal amul ak sa waa CVC bi amul seen fay GPC bi amul seen fay ndax li yombul ndax bu leen neex ah waaye ñun de ñu woon noonu rek waaye nag yàlla nee na man xol lay fay li ngeen bëgg ak fa ngeen bëgg a maa ngi ñaan ci barke weer wi koor wi yàlla na ngeen dépassé kopp ci barke Seydina Muhammad yàlla na leen jàmm sonal ci barke alxuraan waa jàmm xew waaw jàmm xew jaajëf Fall aca jaajëf jaajëf Fall waaw a gis ah noonu lay demee à tout temps aca a ko gisandoo ah. yaa ngi ni allah di wër di jox jaamu yàlla li nga xam ne maanaam moom la ñu ndogo am na ci ñoo xam ne ñu woor am na ñoo xam ne duñu woor mën naa ne ñëpp a ci am koor waaw lépp lu yàlla di santaane rek gëm naa ne ñu ngi def Fall ñu ngi lay siyaar delloo siyaar Baye Diori Fall Baye yaa ngi maa ngi sant bu baax te leen di ñaanal di leen jox seen wàccuwaay te leen xamal ni li ngeen def rek moom mooy dëgg ñoo di feeñal li nga xamante ni moom moo neex yàlla daal ñu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal yal jëm kanam yal na ngeen yal na ngeen ko yàgg taxaw ci barke Seydina bi tax ñuy jaayante ñun nag ñu ngi fi di liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla bi weesuwul li nga xamante ni moom la kilifa yi nekkoon muy ku tedd ki si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul liggéey bi mu santoon Cheikh Ibrahima Fall muy koor wi di gan ñun ñu séntu ko ci lañ ne te xam ay sëtamit ci lañ ne te ay doomam it lañ ne te ñun taalibe yi ci lañ fas yéenee sax ak bépp ndigal bu ñu sëriñ bi jox rek ñu fas yéene ko wéel moom la ñuy ñaan daal suñu borom ñu ñaan suñu borom daal maam di jekku ndigal li rek saa ñëwee ñu gën koo jekku rek mu jëm kanam ba jaamu yàlla bu ne xacci li ñuy def nag moom pour jaamu yàlla yee nit ñi la rek dara taxul du ngi saltu dara ndax dañoo war a xam ni jullit dafa war a dimbili mbokk jullitam moo tax ñuy def lii ñuy def pour jàngal ko askan wi ñun buñ fi jógee suñuy doom di ko def suñuy doom buñ fi jógee seen i sët ak sëtaat yi di ko def moo waral ñuy jàngale lii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla na ngeen fi yàgg te wér ci barke borom Tuba ko def euh, ci biir weeru koor bi waaw tey ñu ñëw euh, tasanteeg jëwrin Baye Fall war a waxtaan ak moom ci li jëm ci wàllum euh, joxe ndogu bi nga xam ne moom la ñuy joxe fii ci Carrefour bi Baye Fall ñu ngi lay nuyu ah ñu ngi lay ziar bu baax a ñu ngi sant borom émission bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaw euh, tey ñu waxtaan ak yéen ci wàllum joxe bi nga xam ne chaque année da ngeen koy def léegi ñu bëggoon a xam maanaam joxe ndogu bi fan lay jugee maanaam dafa am ku nekk seen ginnaaw wala seen doole bopp la wala maanaam nan ngeen di def daal ba organiser ko waaw ndogu nag yàgg na quoi ban ko daree def yàgg na kon tey jii nii ndog yi bu jubsee kon ñun ñu éléments yi am xaalis boo xam ne dañ koy teg si table bi quinze mille quinze mille mais du mat benn weccet ay cinquante mille lay àgg xam nga ndax yenn gars yi ñoo ko joxe waaw lépp mënul mat quoi léegi loolu nag la ñuy jéem jël départ moom si ndog yi waaw. dafa am benn borom doole buy ñëw di leen dimbali wala. non amul fii nag kenn koo xamante ni si nii dinañ la gis nga ñëw di ñu jàppale si ndog yi te ndog yi yàgg na ëpp na sax vingt ans barki Serigne Bamba te chaque année dañ koy jaayante mburu yi quarante kilos la doon don mais xam nga booy bi moo teel a dem jëli mburu yi yéex a dem di jëli mburu yi billaay walaay ah, kon euh, boulangerie yi su ma déggee sax dafa mel ni boulangerie yi dafa am ñoo xam ni dañ leen di jàppale di leen yokkal ci mburu meeg yooyu waaw léegi boulangerie yi comme tey jii jaay am na ñu ñuy jaay instant bii nii cent soixante quinze. am na koo xamante ni mu ngi ñu koy defal cent soixante quinze chaque jour dañuy jënd quarante kilos waaw li bis bi gën a aju ñuy gën a yokk suñuy loxo waaw chaque jour lii nag fortaatu nii si tali bi nii mooy motali bagage bi a bis bu ñu demee ba calculer ko ñu ngi toll si ay six cent nangam mille waaw moo tax ñu koy jaayante ni si tali bi waaw gi nii rek nga gis nii café gi nii huit mille francs deful café gi normal café gu normal gu gaay naan huit mille francs defu ko waaw da ngay def mayonnaise ay defar jënd ay kaas à jeter waaw chaque jour da nga koy waaw da ngay changé ba muy gën a neex daal ni ko gars yi yitteewoo noonu lañ koy defee chaque jour léegi yéen euh, ma bëggoon a xam tamit maanaam weccet bi nga xam ne moom ngeen di am euh, ci tali bi hmm. maanaam euh, des fois maanaam dina xaw a duun wala day gën a néew beneen saa yi bi dina dem dina génne ba romb trois mille mais fan yi ñu weesu nii nii heure bu ñu ndogoo ba pare du amul lenn lu ñu dugal si kees gi ndax ngay fay lépp bor borom mburu bi léegi bu ñëwee léegi nii waaw ni mu demee la mais heure bu ñëwee da ngay yëkkat sept mille cinq cent jox ko mooy li gars yi di maajaal nii sept mille cinq cent da nga ko koy jox suukar ñëwagul ñëwagul da ngay jënd café bu baax kafe da ngay jënd lu toll ak trois mille cinq cent ndax café gii la ñuy café waaw. mais des fois da ngeen am euh, maanaam benn koo xam ni maanaam ci autorité yi wala ci ñi nga xam ni yàlla may na leen loo xam ne as la yaa ngi dégg ba xam mu dimbali leen. ci wàllum euh, joxe ndogu beeg yooyu noonu. chaque année dañuy seetaan mais bu élection dikkee moom. beneen mhm. saa ñu jaar fi. Mhm. bu ñu fi jaaree élection yi jàll na waaw ñu dem. ñu dem seen waaw mais ñun lii nii nii nii dañ koy dund te dëgg la. Mhm. waaw xam nga loo xamante ni dem na ay vingt ans. xam nga. dëgg la daal. billaahi gis naa ni yàlla moo tax ngeen di def. barki sëñ Massamba noonu la demee nag. billaahi wallaahi taala amul leneen lu tax nag ñuy def. Mhm. wutuñu si koppar wutuñu si dërëm. billaahi wallaahi taala. Baye Fall yéen ñi koy Baye Fall yéen ñi koy joxe am na ñu ci woor walla waaw kon man wóoruma. Mhm. damay jàpp si ndog yi. waaw man moom wóoruma moom wóoruma sëñ Massamba. ñi nga xam ne ñoo wóor nag. waaw am na ñoo xamante ne danoo woor kon nii waaw danoo woor ñoom ñëpp dañ ciy jàpp waaw ñoom ñëpp dañuy jàpp si affaire bi waaw kii kon ay magu murit yenn gars yi waaw bari na daal xam nga waaw ah, jërëjëf Fall kontaan nañ ci yow bu baax a baax bëgg nañ ci yow lool di wax ni ah, tey moom mën nañ macha allah li ngeen di def ni lu baax la ci réew mi te lu baax la fi nga xam ni mooy ah, Tivaouane